am ne sunu loxo ndeyjoor bi ak sunu loxo càmmoñ xamee farata ak sunna. mais ba ñu xamee sunu loxo ndeyjoor bi ak càmmoñ xamee farata ak sunna. diine dong nu ñor. diine dong nu ñor. ak sunu yaari way ak sunu yaari wayjur yi. ak sunu yaari waajur yi. muy Cheikhul Khadim. muy Cheikhul Khadim. Sidina Alhaji Malick. ak Sidaaji Ajma Sidaaji Malick. loolu rek nu ñor. ne loolu rek nu ñor. seenu doxin rek. seenu doxin rek. la ñuy mépp. la ñuy mépp. ne mun na koo joggi sax. ne mun na koo joggi sax. waaye ñu du ko mépp rek. waaye ñu du ko mépp rek. di dàq seeni di dakk di di eh, eh, dakk seen i ngërëm rek. di dakk seen i ngërëm rek. di ko yaakaar di ko yaakaar. kon nag kon nag. nii El Hadj Malick def. nii El Hadj Malick def. suñu xol seet na ci bu baax suñu xol seet na ci bu baax. di nga xam ne nag. da nga xam ne nag. ah lii nga def. lii nga def. ah da nga da nga dem ba xam ne. mais da nga dem ba xam ni. li nga war a def lépp def nga ko. li nga war a def lépp def nga ko. li ñu war a def lépp daañu la ko defal. li ñu war a def lépp daañu la ko defal. li ñu war a defal lépp daañu la ko defal. li ñu la war a defal lépp daañu la ko defal. daañu la ko defal. ndax lii la sun la fa sunu maam yi nekkee woon la fa sunu maam yi nekkee woon ndax loolu ma waxoon ndax loolu mu waxoon jenn jëm nga bëgg ko xar jëm jëmm nga bëgg ko xar ñaari jëmm ku ku ko bëgg ku ko bëgg doo ko man doo ko man ndax ñoom ñaar ndax ñoom ñaar duñ jaar duñ yaari jëmm duñ yaari jëm jenn jëmm lañ jenn jëmm rek lañu ndax boo demee ca kaw boo demee ca kaw ñu ngi fa bokk ña nga fa bokk ni ko sëriñ bi demee ci moom ni sëriñ bi demee ci moom boo ko dee seet boo ko dee seet bàyyi la ci moom bàyyi la ci moom nga seet ko nga seet ko nga seet ko nga seet ko muy boo dikkee ci suuf boo dikkee ci suuf nga seet ko nga seet ko muy nijaay ci moom muy nijaay ci moom nga dem ca kawaat nga dem ca kawaat seet ko seet ko muy magam muy magam kon nag kon nag loolu loolu ku leen bëgg a tàggale ku leen bëgg a tàggale yow yaay tàggoo dem yow yaay tàggoo dem fële jërëjëf jërëjëf nee na sëñ bi ne loolu rek moo ko ñor fi ñu toll nag. fi ñu toll nag loolu dong ci laa nekk. loolu dong ci la nekk. ci lay xeex. ci lay moom lay xeex. moom lay xeex. moom lay xeex. bëgg lépp lenn. bëgg lépp lenn. lépp di lenn. lépp di lenn.